mbokk yi dañuy tàmbalee ki nga xam ni moom lañuy ñuy wax Bougane Bougane Gueye Dany dafa taxaw yëkkati ay kàddu jëmale ko ci ki nga xamante ni kii moom la ñuy wax Mansour Faye Bougane joxe ay leeral ak gis-gis wax na jëmm ji nga xam ni mooy Mansour Faye leb nañ xaalis boo xamante ni bii luy toll ci quatre-vingt-dix-huit milliards yoo xamante ni jëmul fa mu war a jëm waaye dafa jëm ci compte privé Bougane ne compte boobu nag ki nga xamante ni kii moo ko moom mooy Mansour Faye kon mu mel ni ay tuuma la Bougane yëkkati jëmale ko ci ki nga xam ni moom la ñuy wax Mansour Faye mais li doy waar quatre-vingt-dix-huit milliards mais mu mel ni Bougane dong moom dong la alalu réew mi yitteel parce que mi ngi ci wax ñi muy waxal tontuwuñu ko Mansour fay deful benn communiqué pour leeral par contre ñu gis à côté koo xam ni dafa ne day laaj di poser question muy Hadjibou Soumaré wax ni mi ngi laaj luy ndeyu ndax daal di poser ay question président Macky ne ko ndax Marie Le bi mu ñëwee ndax président da nga koo may nangam maanaam mu nekk ay laaj kii nag nekk ay tuuma yoo xam ni yëkkati na ko tuumaal ko ki nga xam ni mooy Mansour fay mais li doy waar ci mbir mi Mansour fay tontuwul mu mel ni mbir yi daal dañ ko bëgg a tëb jéggi et pourtant loolu war naa soxal Sénégal Sénégal dañu dem ba problème mu milliard dafa mel ni sax du dara Ousmane Sonko fii la fi yëkkati woon 94 milliards. yoo xamante ni bii mbirum Mamour Diallo bi mu ko yëkkatee wax ko gis nga boobu ba nëgë yëkkati nañ fi luy tolloog vingt-neuf muy mbiru Prodac ak et cetera boobu ba nëgë ni France daal di xaalis bi nga xamante ni bii ci Covid bi nee nañ nangami milliards yoo xamante ni bii luubal nañ ko boobu ba tey France daal di xëddeem mu mel ni sénégalais yi ñoom ci seen jëmmi bopp jàpp naa ni nag war nañoo xam lan moo tax réew mi nit ñi ne ci ay jafe-jafe c'est parce que bu fekkente ni bi nit ñi dañ leen fee teg ngir ñu régler problème mu réew mi mais ñuy régler seeni problème loolu mooy li nga xam ni mooy indi ki parce que bu fekkee ne da nga leb alal ci turu Sénégal c'est pour régler ay problème mais bu fekkee ne alal jooju buggaan li mu wax ne dugg na ci compte privé compte boo xam ni waru fa dem loolu day nekk loo xamante ni bii day delluwaat ci ndoddu askan wi parce que askan wi ñooy fay alal jooju kon lépp loo xamante ni bii lépp nañ ko ci turu askan wi war naa mën a dem ca la nga xamante ni bii mooy askan wi mais nag problème bi mooy ki laaj moom la ñu woo def ko garde à vue ki nga xamante ni bii nag génne na ay preuve am wane ni lii mooy samay preuve kooku moom mi ngi doxantu ca ka nga xam ni moom la tuumaal kenn waxut ay mbiram loolu nag vraiment bu amee ci pénc bi sénégalais bi nga xamante ne bi daa mel ni man day toog di posé waat ay question ndax yoon mi ngi ci yoon parce que loolu mooy li nga xamante ni bi mooy bépp sénégalais bu normal di nga laaj lu ni mel mbokk yi ak xarit yi wax naa ko sànq bi ñu nekkee man ak son bu ak euh, ki nga xam ni mooy Assane Mesere ma ne mbaadu réew mi tuumaalaate fi sax dafa mel ni ci ngay gën a nekk ci sécurité ci kaw nga laaj ay question mu mel ni ki nga xam ni dafa poser question ñu war a indi ci moom ay tontu woo nañ ko moom téye ko waaye ki nga xam ni dafa tuumalaate génne ay preuve def point de presse kooku moom kenn waxul ci ay mbiram dara donc loolu nekk loo xamante ni lu doy waar la